àndal muy tegtal seen dikk suñuy dellit ca la ñuy tegtalu moo tax way wi ne war suura ja in daalul xuduumi li isa fi lmuharrami yowma sabi fi lurumi biddéew ba ñëwoon na ci dabbi téere yi waxoon na ci la mahdi yi ñëw Maodo yu mu wax di mille huit cent trente sept booba gàddaay gi mu ngi ci junni ak ñaari téeméer ak juróom fukk juróom waaye at mi bàyyi laay sunu mos mi gane àdduna moom mille huit ak ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak benn ama suwaru nañu suuf sandin fi asir am mille huit cent quatre biddeewu laar boobu ngeen doon dégg mi ñëw mille huit cent quatre-vingt-deux booba gàddaay gi mi ngi ci junni ak ñetti téeméer moom la Seydina Limaamu di wax naa wala maaraan nañu tala alaba alaba min xuloo bi amri jalla wa asa bàyyi naa ne bi ma gisee vidéo bi suux ca laa xamee maa ngi bëgg a woote vidéo laar booba mille 882 la ama daxwatu risalat rabbi ila alxalaaiq at mi mu wootee moom bàyyi laay jóge ci boromam jëm ci mbindeef yi 1883 la booba gàddaay gaa ngi ci junni ak ñetti téeméer ak benn at amal hijrati wa qudumi min al hijra ba ñu ko sonalee soow ka nañu sonale woon ñu jëkk ñi ci seen woote ba mu gàddaay bët ak ñibbisi ga 1886 la booba gàddaay gi mu ngi ci junni ak ñi ci téeméer ak ñeenti at amaru joo un nag ñi ko sifati lawal li bayaani ba nga xamee ni vidéo bi dellu si la nag di biral si booba mille neuf cent huit la ama wafaati baad al xurub ak masay naa li ma amoon na la nag mooy mille neuf cent neuf xaama xilaafatu Seydina Isaa wallaay arbaina sana Seydina Isaa nag taxaw ñeent fukki at boo déggee sëñ Mor na doon na ma bàyyam agalay fi la amee te naa mbindee fi na nu gëm te jaam te naa mbindee fi na na nu gëm te jaamoo ba muy biral ñoom Mahdi yu waxoon na ni kootaawam maanaam ki ki kay xilaafa wu kooka day day day day lëm day lëm ki nga xam ne mooy wusu Mahdi yu day lëm liggéeyu saaba ya waaw waaye kat dina doon na na bàyyam addalay fi la amee te naa bindee fi nanu gëm te jaamoo. addalay fi nanu gëm te jaamoo te naan bindee fi nanu gëm te jaamoo. Abdoulaye nag lan ba fanweer la yéen a rëdd fukk mu ñeen fukk loolu la Seydina Isa wuutu limaamul Mahdi ci xilaafa bi saabay rasulillahi ya ñeent fukki at la ñu séddoo wuutu ko yonente bi borom fadu rabbaan ne kay wuutu maam yi day ndëm liggéeyu saaba ya kon sama waykat wale la kani Ababacar Omar Ousmane wa Aliyo yaa mboole seen mahdi ji targaay ñi targaaya yaa boole seen ni ma yéeg ñi targaaya yàlla mu ne kay ngeen ngor fa yàlla seeni leen nga boole yow saa seetu man kon dinaa la ñaanal doole ñaana doole jaase pamam dinaa la ñaana doole daa taxawal nag neuf cent neuf dal yor diine ja moom it ba mille neuf cent quarante neuf vidéo bi dellu si di tegtal génn ak isaak àdduna ciw ciw tam xare fa kaana tal atoo fi fadli qad yarawu fi asfati ijrati nabii fil karami boo bëggee gis na penkatal vidéo ba fajar la daa génn booba gàddaay gi mu ngi si junni ak ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñett. kalla saaka dalaalatu taxyiinan lahu abada ila irtiaali min addunia ila alxudumi nee na tegtalu vidéo booba rek day biral laxas yoon Seydina Isa ci àdduna jëm àllaaxira kalmaadiina bi rusulillahi yaa ajaban ka misli Muusaa kallimu laahi xayri loolu nag ñu jiitu woon di yonente yàlla ya ñoom yoon yàlla Musaa ak ñeneen dul ñoom teg ca jaar ñu ne góor gi nag kon ndax Seydina Isa am na benn docteur boo xam ni doon na ka faj ca tawat ja mu ne ismu tabibu lesi kaana sifaa daroo alami munu turu docteur ba nga xam ni doon na ko ay garab Mor Sarr lañu ko doon wax ku ñu wóolu ko kay borom xam-xamu docteur waaye baadama asa tisa ashurin kamula fa asirun bi sawaarin maata fi urumi ba nga xamee ni làkk nañu juróom-ñeenti weer yu mag fukkeel ba ci weeru ci weeru kori la sang bu wuy ji boromam laakin tuwafiya yowma lahadi waxtu salaati al asri tattaribo unaasu kullihimi ñu ne sëriñ Moodu waaw ban waxtu la ak ban bés la mu ne mi ngi nelaw bésu dimanche ñu ne ko ci ban waxtu mu ne ca tàkkusaan waaye nag te tërëboo rëngi-rëngi na unaasu nit ñi kullihim ñëpp ba nga xamee ni nag nit ñi yëmbu na yuuqu fa saatil bintu iyatu aabi maanatu daay xaama sayidina min malja'i samami ba nga xamee ne doomam ci di ñu wax maanatu laay yuuxu na لسيدنا إذا دل الجوغا تعوات نتي أدنا فيقطع بلون بتدك لأنه وقت وارو من لنا وانت تاكو سان بدك بيونغو دوما نيوهو لدل الجوغا تعوات يا سائلا فرجلهم ثم خرج من بيت سخير إلى الكبير مقترين mu daldi laaj lu ngeen di wax monsieur Naïssa waaye suturaal leen mooy dañu leen jàjja daldi jóge ci néegam bu ndaw bi mu nekkoon jëm ca bu mag ba ngir ci néeg bu ñax ba ca la nelawoon foofa ca heure booba ba ñu ko mu jóg jàjja leen dugg ci néeg bu mag ba ñu ne waaw sëriñ Modou bi Seydina Issa jógee ku mu àndal mu ne قد قاده ابن بامركي وعائشة شقيقة فوصول بنت الإسبي mu ni ba mu jógee moom seen Aïssa fa mu tëddoon sañu na faatu na ba mu jógee lëng na ko doomi Bamar Gueye dañuy wax Ablaye Gueye Bamar ak ab jigéen moom seen Aïssa ba ñuy wax Aïssa seen ñun ñoo ko lëng ba ñu bugg ci nit bu mag ba. isam rajiwu qulubu ahlu xariyatihi lil fardi siddati amun ala nasabin mais ba mu jógee nag war kambareen seen xol dellu si na ca tiit ma mu teesu woon ca waxtu wa wane min qabli salika nabda siru kurama imaamu masjidihi muhammadul alami ne lu dëkk nag ci ka yooyu dalee woo na ku tedd ka ka doon ilimaani روى بعض أشياء بأمر أبي قال عادل لا ملامة المقبل منك موضوعة سبعي تفسير لك شكنا مجنين بالله في مطبع سبعي تفسير لك شكنا مجنين واحنا من كتاخوا يا سائلة وهو تفسير لك واللي يلاهي وسيخ أحمد بن سعيد العلمي تفسير لك قالوا احمد بابا سكنوا المجنون بلاد مسيح عيسى وقتها منهم وما يؤدسنا عند الامور كما يؤدسون لاهل لا يشد سمين يوم يعرف وقت ان ñoom ma ay mbir yoo xam ni daan nañu ko waxtaan ak ay يا عباد الله فاجتهدوا مستمسكون بحبل الله بحبل الله لم تسمي لكن القلب mu tafsir Ndické ak Cheikh Ahmadou Bamba ñëw nañu waxtaan ak man kon nag maa ngi leen di dénk yéen jaamu yàlla yi ngeen farlu te moyaalu ci buum bii nga xam ne du xanjabay na te mooy wootam yàlla bi lamaa rajiun ilayhi lamru murtaida qabla intisaabi bi yawmi lahdi fi l-urmi téere bi nag ni boo bëggee xam li ma lay wax faatu woon na ci takkusaan kay waaye bi doom ci yu ko jógaat na lijjanti yii waaye nag nasaraan ga nag jëkk na joxe na ca bis dimaas ba tey ca kër ga ñu ne ko ñaata fan mu ne fi sab isri fi sabi isri na tilka léelu léelu ko lisnee ni israa ila mawlaahu sunyaami ñaar fukki fan la ak juróom-ñaar ci guddi ga di guddi altine ca la rañaane jëm ci boromam seenaay daal xam kaana muxtafiyan بين الإله بالليل أهل قرية لخوف إسلامي ñu dal di nëbb nag nelaw ka lu tax ñu nëbb ko mu ne ragal nit nit loog taalibe yi ci dëkk ba moo tax ñu nëbb nelaw ka ca waxtu woowa de ليل الديان من دار الفناء الى دار البقاء كالليل سعد في القلب من يقول لي سيدنا عيسى كين ادنا جم الاخره بو بكي خم نمو مل تي نيت ني گن نا گن دي كو تيب سي بير خال لول لا طالب يمال كرام تي تي أن الكروبات عند يوم منتصرا بين العباد اللي فوق عن العباد كلهم nee na njàqare wàcc na njàqare tasaaroo na keroog ca taalibe ya dem ca gox ya ku ne jàqare keroog waa fa qaama sayiduna omar xalifatahu mustahsinun dardu wa saabiun kaani ca la taxaw nag sëy naa ma njoor ka ko war a wuutu muy diisoo nag ak roba ak fan lañ koy rob mu diisoo ci loolu am na ak taalibeem yu teddee bi ay jihati min jihati sayidina imamallahi ak bi rijaali kulli min waaye nag booba dañu ne dem leen yoo ca jàmmalaay ci ban boor lañu ko war a rob boobu booba loolu la ñoom fa yaati baxda uma samben nga yaxbiru ma usaaw sayidina isa bi daawaami ginnaaw bi bi ñu demee nag ñoom ñoo ñu doon seeti xabru ba boobu góor bi ñuy wax Samba nga wuutu leen daal di nettali la ko Seydina Isa waxoon fa qaala ayyu makaanin mittu fi siwaa Ndakaaru tatrukuuni hunaaka mawdiu samami mu ne leen man Seydina Isa noonu na ma sam ndeng fu ma génn àdduna fu dul Ndakaaru nañ ma bàyyi foofa waaw in jaani lamru fi Ndakaaru fa tasabuni bi saakan waa bi fi alami su ma génnee àdduna Dakar faafoo foofa farlu leen yóbbu ma yorof te xur woo ñu rob bàyyi bi doon tey foofu ngeen ma war a rob ngir duma bokk sama bàyyi xam nekk boobu sëy naa mu jon moo war a dem bokk ne فتدركوني بكمان إن مت فيه فأهل موسى كفيل الله في الخدم فتدركوني من غير ما بقى ثم فاتوا بكمرن تكمرن in mutu jeem faataanaa fi aja Cambérène faala moo ngeen xam ni sama faatu Cambérène loolu jëf yàlla la mu mu ne ngeen bàyyi ma Cambérène soo fa ngeen xam ne man sëy naa Isaa su ma génnee àdduna Cambérène loolu jëf jëfi suñu borom waaw awalaay awalaay mooy ni borom daaroo borom daaroo Seydou Rawlaay mu ne ak borom daaroo Seydou Rawlaay واو واو yooyu yëpp moo ko mën foofu nag ba ñu noppee jawab booba rek waa Cambérène daal di kontaan nag la maam caabi kalaam la ñaxroo na ali Cambérène daal di gis nii fay këru gàddaay ga ñu dal di dégg nag sëy naa ma ñoom nag dal di taxaw ci mbir moo ma ñu wax ci dul ren bi dal di yónni nag fa arsala baadu fi jalbil qubur li yëg ko makkaan na royul qot si fil kadami mu daal di tànn nag ay gaay na leen dem leen ca armeel ya xoolal ma ban boor la ñu waroon sëy naa Isaa mu ne sëriñ bi nag kon na nga nu wax tur yi tur yi sëy naa mën dem tànnoon ñu war a seeti fu mu waroon sëy naa Isaa kay roog yàlla mu ne la si na gaa ne nga xam ni xel saaboo demoon nañu di seeti bërëb ba subayru jóob si jóoru jóoba nga ci lim ka wa Ibrahima Faalo ca la bokkoon wa Ablaye Gueye ak Ablaye Gueye Bama ca la bokkoon taxaw li baax am ca li baax am ca kat bokkoon na ca ci tarixi ca yoon waroon yaa say laa yow aji laaj imaamu Ahmadou Wade ak imaam Modou Wade siiru sama mi du rokkati aji seet ñooñu ñoo demoon di seet fa ñuy robe ji Seydina Isa ba nga xam ne dem nañu nag baax na saabi bi lësiina taaliboon na makka la xam Seydina Isa ba ñu demee ba seet bërëb ba mustahsinun xuslo la maan tasaasa li léegi la ñu diisoo nag ci ak cangam nag ba guddi ga nelaw bën nañu nelaw faxtaara laxyaaru min asaabi alkurama li taxsiloo amoo bil xusli wal isami ñu tànn nag tànnee li saabaam ya ña di way cedd ngir ñu sang Seydina Isa waaye nag mu ne ñu ngi ko sang ci kanamu jigéenam bi mu bokkal ndey ku sell ku taxaw taxawaayu góor kuy borom ittee فتحضرنا اجلا ما يحتاجون به لبلا خمي صحر وانا الخب جسنا سيدنا إساء دلنا كأني لحمة النيم الكتب لنصر وانيا ولكفن آدره في مصر وكساء كان حسيا عجبا بخير إسلامي سنغا سنغا نيو سنغا نيو ورنا كيمان أمو لك لديجو ينالاو نحن نسنغ سينا إساء fan la ñu ko jëlee ngir ndox ma ñu sang rasulillahi amoon nañu teen ba ñu ko jëlee ci Medina Munawara teen ya bëri woon nañu waaye bi xaasta lañu roote ji kon nag Seydina Isa teen ya bëri woon na fan lañu ko fan lañu ko rootale ak ku ko rootal téere bi ne maawun ataahu masaar ñan saa daxaw maawoo lu wuroodi bii biiri jan bi baxri mi mu ni ñu andi woon ndox ma ña rooti woon na nga ca wax masaar ku ñu naa masaar saa baxaw mbay ak saa baxaw mbay ñoom dañ ñoo rasi woon te teen ba nga xam ne moo nekkoon ci booru géej gi mooy teen ba la fa nekk léegi ñu ne ko waaw gaa ñun rasi nañu ba ànd ci teen boobu ana ñu ko sanga mu ne la si na xasalawu Malick bi kaay maawoo ma mbay gite Samba Ndiaye bi isil kërami nee na ca ma mbay gite ku ñuy ma mbay gite la Ndiaye góor gu ñuy wax Samba Ndiaye bii ni seen këram ci ndigal seen amandoon waaye bul bàyyi kasaaka aadirawu surun ma say ñan sul bu kaay seen urumi nee ba tey bul fàtte dafa teewoon di boroom aji tedd ga ku ñuy wax ma say ñan na moom mënul woon a sang na ngir jooyam yu bëri ngir yërmande ñu ne lu mu doon jooy mu ne li rahmatin wa latifin samloo sakiya maal iyaani kasaawa rahmatul lumami nee ma fee nga taaliba ya gàddaayoon ngir wacc i dëkk ngir Seydina Limaamu ak Seydina Isaa mbooloo mu sell ma ak njabootam nga yërmande la amoon moom la doon jooy fa kafanoo bi aswaabin suwaaliyatin fa xarajoo waariyaani daari munkatimi nee na sàng nañu ko yu rafet ne génn nañu لبك فصير رجال لا يأسينا نحو الدري في تلك الليل مهترم ليه يبنى سيد عيسانك قولي يلا يلا جلاتي يمسك درم مجدبة صلى عليه خليفة هناك واصحابه عليهم صلاة الله وسلام نجل لك خليفة مفرفة أبتال بها مجدة إصابة مجدة نيخي ولك يلا المجم يلا ما تسمهم فنصر الله مسلم في صلاة على قوم li tax ma ciy jot fan maa raami ne ba nga xamee ne Seydina Mandione tëral nañu Seydina Issa mu tim ko ba mu ne allahu akbar nee na aw niir dott na di taw ca seen kaw ba nga xamee ne nee na wa alayka salaam ne ne taw ba daan naari ji. mu ne ba nga xamee ne kabar na. دجلن دجلن مغلن وغداي دو وقت واحد نقول لكم يعني هنا من جنن الله أكبر نين النير ودتنا دي ركسين كو بمني السلام عليكم نير وتحو قد انتهى المصنف وقت تمام الصلاة أجل الفليلين أنفس القدمي متهمنه منكر xabaar yàlla taw ba dog ci waaye ba mu ne asalaamaaleykum kat ci la niir wa taxaw kon nag sant nañu yàlla mi borom ak jëkk mu ne la daal usuli sabilul xabri yaqulu fii samba yaasin bi ma li sadamin idami ñu ne ko yow fii bi wax nanu wax nanu ñeroo ci ndox ma wax nanu ñekka sang wax nanu wax na lu ka ka jullee kon nag na nga nu wax ka ka dugal ca kan ma moom la sëñ Mor naa bu tànn doon yore su ñu nee siyéenu ko kon du ka faaf banaa bàmmeel ba am ko. kon du ka faaf banaa bàmmeel ba am ko kon du ka faaf banaa bàmmeel ba am ko. loolu la sëñ Mor wax. ba yàgg mu ne xajjaala rabbi.

na ay saaba waaye wax xam xam na taxaw na tam ci lu wax ci jënd la mag laay njaay waaye Aboubacar Diop Aboubacar Diop fii la ñu moo nekkoon ci ñaari tànke kon ñett ñooñu ñoo ko dugal ca kanam Samba Yacine mag laay njaay Baboucar Diop. damaan taabi tamaami daf ni rabbi anum dul jëlaat yu xidmatu sama mi ba mu robee nag ba mu mag nee na liggéey nañu ko liggéey bu rafet ba Seyna Issa riñaanee nag la reeroo riñaan ànd ak moom kon yàlla yàlla wàcc ci moom yërmande ak ñenam كذاك سلفوا ايضا واخره عليهم افضل الصلاه والسلام قبل سب البيت بعد دهنيه صيله والقبه ايضا لاكرام مع الاثم mais Seydina Isa ba ñu ko robee samp nañu néeg ba gannaaw rob ga xubal nañu ko teral nañu ko salaama ju mag lil xaw fi ittarabu sànnal kasaas jaami yàlla yàlla dolli barke ak ngëneel بعد رجوع سعي قد بقى عمر إن بري مناجر أبو الكرم بنقرب di deeyoo ak boromam ci xabru ba xanaa una li ka waxdan muddatan nit waay rahmatallahi wal xubraani kulli bi wéet na boromam fii naa ma njoon moom rek diir bu yàgg di ñaan yërmande yàlla ak njëgalam yàlla nekk ci jàmm no me bailar no me लॻल गे नाल चला हूं न पसंद नवे उल गेम कर borom la benn siyaare leen ya jël naa yow yàlla la yoon ni ngay nabi ah. ba la bee la beel siyaare leen ya jël naa wala dëgg woon dafa kenn bàyyi laay ñaar dafa kenn bàyyi laay na ko toogal പറയുന്നത് ليس لما أنا من غير المضي بل سأمي كايلانا لك سأمي من معهم أول جايل عنقر المدار سواء الليل جلنا لكن عنقر المدار سواء الليل جلنا لكن عنقر المدار سواء الليل جلنا طعام عضبي أو حقه وإلى أين رحله؟ ربنا ما يريد يا محمد ما وحلي ما حليو يحكي اسم لا يحكى بركة سبارة مون ما بيو ما ما يخنت دم ما يمام مصطفى يوم بيجي بيجيك مو دم لما بيو يحكي اسم لا يحكى ما بيو ما يخنت دم جيخ دم ما يخنت ñu ne benn ñu xam ne nag nit mënul mënul di wax naa mën a mën a mën a mën sa bopp moo tax ñuy wax ku baax ay ñu di ko tagg di ko wañ njol makka waykat yi naka doo dem déglulu yow noo la wax loo ma bàyyi laay jàngul bàyyi laay loolu mu jàngul te yonent bi jàngul woon te bàyyi laay ñëw imra في قتالي وقولي وفعالي ما لا من قتال رسول الله أردت بالإمام تبعي من الدف جكو وقت لما متهم من show me.